mbokk yi ak xarit yi dañuy déglu ki nga xam ni moom la yor Cheikh Yérim Seck ci émission Papa Ngagne Ndiaye ñu laaj ko ci Walf Fadjri mu lànk ne du ci wax ñu déglu ko te ñëw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 non non non Cheikh Cheikh nee nga doo ci wax nañ non non non s'il vous plaît Cheikh non non non mais bëgguma nga wax loo xam ne aussi lu koy chargé lay non s'il Cheikh mooy lu dugg doomu. d'accord léegi Cheikh. non non non non média mooy nekk ci digg. Euh, Cheikh non non non ça c'est ça c'est en français. parce que média ça vient pas du français média c'est latin. d'accord mais ça signifie pas digg doomu en latin. ci digg doomu de d'accord la version française mais le mot média n'est pas français le mot média est latin. d'accord mais ça signifie pas médium. le mot le plus proche de média c'est médiane. non non médium mooy fi je sais je sais alors tu mais dama ne. ah non mais si y a ne y a ne mooy l' adjectif le plus proche de média c' est médiane. en français une position médiane ça veut dire une position équilibrée. d' accord léegi. Euh, jërëjëf macha allah euh, Cheikh Yérim Seck dañ ko laaj ci Walf Fadjri mu bugg ci wax mu dem ba ci biir mu am envie wax ci Pape Ngagne ne ko déedéet mënoo ci wax ginnaaw nee nga doo ci wax rek noppi mais noppil bi yëpp mënut a noppi c'est parce que bëgg na cee wax lan moo tax mu dem ba ci biir mu bëgg cee wax te ci njalbeen ñu laaj ko mu ne du ci wax euh, Cheikh Yérim dafa dégg Umar Seck bi muy wax di leeral ni Walfadjri kenn waru ko tëj parce que tëj média di joxe ay explication seex Yérim xam ni Umar Seck mi ngi convaincre sénégalais yi te moom ginnaaw E, soofantal na ko ci njalbeen gi mu yëgti nag bu bàyyee mbir mi ki nga xam ni mooy Umar Seck li muy wax ni dana jàll te la fait que moom mu toog amul leneen lum wax ngir défendre ni Walfadjri liñ ko teg dagan na mu bëgg a dabu bi mu bëggee dabu nag Pape Ngañ bañal ko ko mais ci biir wax ji sërëxal na ne média dafa war a équilibré sénégalais yi seetaan nag dama bëgg ñoom ñu wax ma ndax Cheikh Yérim nit ku équilibré la buy wax ci mbir ndax sentir ngeen ci moom ne nit la koo xamante ni bi kat li muy def boole na ci ak maandute yow sénégalais bi seetaan yow yaa ma mën a wax ci mbir moomu te seex Yérim xamul ni biñ ko laajee ci Walfadjri Walfadjri day ab tur rekk mais moom bu fekkee ne journaliste la liberté de presse ci côté boobu la waroon jëbee warut jàpp ni parce que loolu moo tax ma leen Cheikh Yérim euh, ñi naan dafa am xam-xam dama leen a yërëm parce que dañoo xamul ni ki ñuy wax wallaay yàlla def na amul xam-xam euh, maanaam da doon pour mu wan la ne moom ku xam la maanaam day wéeru ci ku xam wala ku ñu xam di la wan ne la toog naa ak moom naanandoo naag moom kafe laaj naa ko mu tontu président sàngam nekkoon naak moom loolu yëpp du président bi moo ko ñor mais pour nga jaar ne ginnaaw kii mi ngi toog ak kii nga jox ko moom solo parce que moom yëg na ci boppam ne jëmmi boppam kese amut solo waaye ngir moom mu am solo day wéeru ci ñu am solo ngir nga jàpp ni bokk na ci ñi am solo kooku mooy Cheikh Yérim parce que bu fekkonte ni bii tey Pape ngañ daf ko poser question dafa war a am yëg-yëg ne lii daf cee war a wax parce que lu tax mu war a am yëg-yëg ni daf cee war a wax mooy ñaar bu fekkee ne métier mi dafa jubut mu gis ni am na organe bu koy doxal mu jubbanti organe boobu xamal ko ne ni muy doxalee ci nii ak nii du yoon wa ilaa bu fekkente ni bii tey yëg na ni organe boobu li muy def kat mi ngi ci yoon mu wax ni organe bi de ni muy liggéeyee mi ngi ci yoon ndax lii ak lii parce que organe boobu defut lu dul di joxe ay xibaar te moom muy wuyoo taskatu xibaar nit ñi jàppoo ko ne moom kat taskatu xibaar la boo xamante ni bii mi ngi liggéey ci wàllum tasum xibaar doonte sax nee na day wax taxaw fenn sax ne moom du journaliste d'accord wala ñu ne du journaliste waaye en tout cas ci métier moom mooy bi nga xamante ni bii ca lañ ko euh, ca lañ ko xamee donc mbir mi du wal Walfadjri dafa dal tey ci Walfadjri ëllëg mën naa tudd beneen organe muy seen TV ëllëg mën naa tudd TFM mën naa tudd keneen keneen ay dogal yoo xam ne dal na ci seen kaw léegi seen métier la loolu kon war na mën a yëkkati ay kàddu wax ci mbir mi Sayrib nag am na leneen parce que dossier bi am na yeneen mbir yoo xamante ni bi moo tax mu bañ a wax ci Walfadjri parce que bu leen fàtte di am na benn annonce boo xamante ni bii Cheikh Niass mi mës na ko fi def ay jamono boo xamante ni bii day def genre télé-réalité boo xamante ni bii euh, euh, comme genre ça va se la woon mu doon wara a def benn thème boo xamante ni bii daf doon wax ci koo xamante ni kii dafa violé te thème boobu mu jëloon am na nu yëf yi demee ak yoo xamante ni bii xew na ba après sax. sii di dafa e, censuré kii boobu mujjut a jàll waaye xam naa ni am na yu bari yoo xamante ni bi def na buum parce que e, am na yeneen daal yoo xamante ni bi Cheikh Yérim xam naa li tax mu daw li ni tax nit ñi di xalaat am na yeneen angle yoo xamante ni bi e, ca jamono jooju bokk na ci li nga xamante ni bi daal xam naa ni moo tax mu daadee bañ a wax ci mbir yi waaye nag waroon na xam ni fii moom du Walfadjri bi moo am solo déedéet waaye li am solo mooy nit ñuy liggéey nga bokk ak ñoom yow métier mi ñu xëy ne leen du ngeen waxati ndax loolu jaadu na wala jaaduwul loolu ci la waroon a jàngat defe naa ne bu amoon xam-xam tuuti doon na wax ci mbir moomu